ay Baay Faal lañ kom ñoom te ay murid lañ fi lañ juddoo fi lañ yaroo lu sëñ bi wax moom amul dara luñ ci teg lu du def jëfe Baay Faal yi fii buñ fi ñëwee tonni la ñuy def waaye duñ dindi ndax ñun gëmuñ ko du sëriñ Tuubaa buñ ne woon tey bakkan lay laajte ñu joxe suñu bakkan xam nga te gëm nañ la ci ginnaaw moo daq tey fii nag moom fëgg jaay lañ fi doon jaay ak bali fëgg jaay waaye biñ ñu waxee ne sëñ bi nee na dañ ne moom lii sax dañoo yeex waaye ñoom fekkoon nañu dindi ba noppi di ci gën a rafet rek gën a dalal suñu xelal di gën a gëm ne moom suñ digg ci ndigal rek la ñuy dund ndax ñu nag Baye Fall yee koy ànd di ko dindi ba ñu sëñ bi jox tin bu weesoo ndigal lu mu ñu jox buñ ne feneen ñu dem foofu buñ ñu defaat leen ñu defaat ñu daal fi ni ni suñu bagage la ñu takk di xaal sëñ bi ñu joxee ndigal li ne le 24 pour ñu jële fi bagage yi avant le 24 bari na ñoo xam ne dañ fiy jaar naan yàlla na bis bi si bañ mën a saccager def liñ bëgg a def kon déjà bu nee dafa am benn foule banditisme boo xam ne ñoo jug def ñaaw ñaawteef bi après loolu ñun lu ñuy mun a gëm la lu ñuy mun a gëm la puisque Baye Fall du fonctionner nii quoi ndax toujours man dama koy wax naan rue bi fii nii boo xoolee bu doon un million de personnes mi ngi fi diggante Baye Fall ak Mouride fi ne diggante Baye Fall ak Mouride fi ne non bettuñu de fii ay bant rek lañ doon tas waaye amul benn matériel boo xam ne nii bu ñu bu ñu bu yàqu ndax dañoo li ñu wax mooy ginnaaw suba lañ ñu waxoon fa la ñuy mujjee kon ñoom bu ñu del si waatee ñu ne Baye Fall yi ña nga ca corniche ba ña nga gede ña nga daar ñi am ñeneen ñu yoolee ku ñëw kon ñooñee da ñooñee mën ni leen tudde leneen lu ay baay faal Baye Fall moom ñu ngi ci corniche bi amu kenn koo xam ne ndigal lii naqari na la ndax dafa jóge ci ku tedd di Cheikh Mouhamadul Mountakha ñëw ci ku tedd di seen bi mu demee na Fall lu bokk moom liggéey bi lii mu ñu def nii danoo jàpp rek dafa gën ci ñun tax man mii wax ak yéen de giñ naa gi sëñ Tuubaa de ak samay morom yëpp bu suñ mu taxaay taxawoon ci suñ budd kër ni génn leen sama kër yi wallaahi sam yi dañ koo jël ru jox ruu jox ko suñ mu taxaa lépp lu mu def duñ ko booleeg lu mu defut rafetlu nañ ko lool te ñu ñëw en masse plus de cent personnes ñëw di di def di n'importe comment da ngay gis acte yi rek nga xam ne lii du jëfi Baay Faal mais riz bi fii ay Baye Fall ki murit a fi ne ñun xam nañ comment ça se fonctionne un xam nañ ni Baye Fall di dunde man à tout moment dama ko wax gars yi nii rassurez-vous Baye Fall yi kenn gënu leen a kenn gënu leen nekk ay intellectuel du nuy dof pour loolu toujours ñu koy bàyyi xel qu'on soit clair et net Baye Fall yi ay nit lañ duñ fonctionner comme ça. masokaas bi tamit lii fi am mbetteel la ma koy mettilu ci benn côté. ndax côté bi mooy dañ noo joxoon ab délai tey jii ñu xëyoon mobiliser doomu aadama yi nga xam ne ñoo ne ci barab bi ñu ne ñu ngi ci corniche bi suñ paree ci corniche bi dañuy ne sëkk kàmb yi def nañ tournée dem nañ ci corniche bi ba ñuy fay dem ña nga tolloo fa ñuy wax jàkkee seng jàkkee seng wuti corniche suñu Cheikh moom suñu Saliou nga xam ne ko dañ ko war a tuur su bi jeexee ñoo war a dem ca kàmb yi kàmb yi dem naa fekk naa fa ay oto xeer yi ñu toj ci corniche bi na nga ko yóbbu ci kàmb yi kàmb yi daa waroon a fekk ba fees dell ba maasaloo ñu door a ñëw ci bi marché Ocass bi door koo door koo door koo toj ñi nga xam ne ñoo yàq ñi nga xam ñoo yàq nag jar ñu leeral la leeral mooy am nañ information bu wér nañu ne ñii ñii dugg ci marché bii te jii ci àjjuma jii dugg fi diggante 11h ak xam ne ñoom lañ joxoon marché bi. marché Ocass bi sëñ Abdourahim Fall moom suñ moo yore bopp bi moo fi waroon moo fi daa moo fi daa teew moom la ñuy waxal moom la ñuy jokkool li ko waral nag booy dañoo wax ne am na kuréel yoo xam ne dañoo jógee Dakar. wàcc fii seen wàcc seen i oto dégg ñu ne gaa yaa nga gaa yaa nga gaa yaa nga gori suñu cheikh ñu neñ ko nañ fi jaar barkeelu yor seen i bari miin ba yàq fi bagage yoo xam ne liñ fi yàq ëpp na ñi ñu toj marché bi du du bàyyi faale ay kuréel yoo xam ne xamuñu buñ jóge ñoo fi ñëw filmé nañ leen buñ ko vérifié dana ko xam kilifa gi nga xam ne mooy borom dëkk bi gannaaw bi ma joxee ndigal bàyyi faale pour ñu saytu li nga xam ne mooy dëkk bi ak li ko wër yàgg na lool yàgg na ndax joxoon na ab délai avant tey dañoo xam ne depuis le 24 ba tey ñu doon egsi ñun ñun ñii nag tey lan egsi suñu kaw yàq na li fi nekkoon lépp mooy dëgg ñun ndigal dong la ñu wéyee amuñu lu ndigal ki nga xam tey mooy kilifa borom dëkk bi tey bu taxawoon ne seen kër laa sax dañ koy jox ba mat sëkk ñu am fii lenn. ñi jaar fii ci réseau bi def lii man de damaa xamul ñan nan waaye ñi nga xam ne ñoo yor ndigal ña nga ca ña nga ña nga ca corniche toog di di di di di réunion parce que loo gis lu ne dafa am waxtaan nit boo koy jëlee fam nekk sax da baay mu jël ay bagages am jël lam fa am ba nga xamante ne ni luy am dana mën a tedd waaye dañoo ñëw rek di daw tourné bi doo ndox bi romb fee nga xam ne ndox mu neex la yàlla seede ne ne dañoo jël paaka bënn ko wallaahi lancé ay nit di daan seen doole di liggéey ay nit yoo xamante nii sa waay ñëw yàq ko ci loo xamante ni teguwul fenn loolu dekkul jaaduwul Baye Fall yi ñëwaguñu fii Baye Fall yi ngi ci corniche bi Baye Fall ñu ngi ci corniche bi booy ñoo fi dugg yàq ay samba booy fi dugg yàq waaw gisuñu police gisuñu gendarmerie gisuñu kenn waaw gisuñu police gisuñu gendarmerie gisuñu kenn fi na nii yaa ngi gis bagage bagage yëpp yàqu na bagage yëpp yàqu na ndax délai dafa am da